waan fusikum dana mu nattu leen seen boppu bene ba daati ci ay jaamu yàlla wal baraaya ngay nattu de buur ne danaa leen nattu seen alal du foofu waaye danaa leen man nattu seen i jëmm de sant leen ay jaamu yàlla muy farata yi yàlla santaane suñ kaw ak naafile yi nga xam ne gàll na ko de ak tere yi nga xam ne tere nañu ko moom borom bi subhanahu wa taala ak it yooyu yëpp ay nattu lañu nattu ba xam na la dem def yonent muhammad sallallahu alayhi moo jiitu ci ndam ci nattu yooyu de farata yëpp matal na ko waaye daan na naafila ba tànk yi te yàlla jégal na ko bàkkaar yi njëkk yu mujj yi ñu laaj ko lu tax rek laa wax de mu ne kunu abdan shakuran ma nax du ma nekk jaam buy sant yàlla de yow fexeel bu la yàlla na too teg lay farata nga matal ko naafile yi def ci li nga mën yoo xaraam yi bàyyi yuñ si bi bàyyi ci li nga mën rek laa wax de yàlla na naa leen natt it ci jëmmu teg leen ay jafe-jafe yu métti ku ne yàgg na am jafe-jafe ci yoon yàlla waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jafe-jafe yi ma am ci yoon yàlla kenn mosu ko am Uqbatu bun Abi Muayt mos naa toog ak sangi Màkka ya Abu Jahli ne nag kéeféer yi ñu ne kan mooy jël sebbiti gëlëmu giir sàngam daal ko sotti ci kaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi de Uqbatu texaareem mu ne man la dem jël biiri gëlëm yee salte yépp fekk yonentu baa ngi julli ci kaaba ga rek mu daldi koo sotti fekk yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi sujjóot mënul siggi ba Faatimatu moo ñëw doomam di ko dindi ci kawam di jooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi yàlla bi tax yàlla bind way njëkk ak way mujj tumuraanke na noonu rek laa kon nattu foo mu am uma yëttu bun xalaf saa yu dajeek yonent bi rek daf ko daan ayibal di hokkante waaw di ko xeeblu rek laa wax de yonentu jaar na foofu yàlla teg na ko natt yooyu ubay bun xalaf mas naa toog rek déglu ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonentu kat ñoom luñ ko weddi weddi xam nañ ne wax na dëgg la muy waxi neex na leen waaye dañoo rëy rek ak ak kañaan moo tax ñu bañ koo topp ba ubay doon déglu yonent bi uqbatu daal di ko yedd ndax ubay ak uqbatu ay xarit lañu woon ne nag faw nga dem rek fekk yonent bi taxaw nga tafli ci kanamam ubay bun xalaf dem jëloon yonent daal tafli ci kanamam rek laa wax de xam nga ne loolu kenn ñëmul la koo def yow waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa fekk ko mu taxaw rek mu tafli ci kanamam rek laa wax de kon kooku yàlla nattu na ko <coughs> ubay jël na ab yax mokkal ko ba mokk mu jàkkaarloo yonent bi rek sallallahu alayhi wa ko wal mu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tumuraanke woon na noonu de njëkk lislaam yonentu jëloon na doomam bu ñu wax ruqayatu may ko xot batu jël umu kalsum may ko xotay batu ñaar xot batu xotay ba ñaari doomi abu jahl abu lahab lañ yonentu daal di jël ñaari doomam yëpp may ko ñaari doomi abu lahab yi de ñaari doomam yu jigéen ba mu wootee ci lislaam abu lahab ne aywa fase leen doomam ya utbatu daal di fase ruqiyatu mu tey ba too ji ñàkk kers dafa ñëw ba ci kanam yonentu yàlla muhammad sallallahu ko weddinaa wan di tafli ci kanamam ne ko fase sa doom yonentu ñaanal ko yàlla ne ko yàlla yàlla xiir ab xaj ci xajami sa kaw su ko defee nag mu tukki di dem waa waaw dégg gaynde guy sab rek muy tiit bay raf raf yi ñu ne ko la yow lu xew looy tiit mu ne yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na yàlla te ñaanam yàlla du ko delloo lu ñu ko weddi weddi nag wegg nañ ko xam nañ ne wax na dëgg bu ko defee ba guddi jotee ñëpp tëdd wër ko mu nekk ci digg ba gaynde gi ñëw di fóon bopp yi di romb ba ci boppam tey bëtu bi rek mu daal di ko dagg rek laa wax mu daal di dee ba nga xamee ne abu lahab moomu mi nga xam ne mooy bàyyi ñooñu bàyyi taxu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaye ci ñi ko gënoon lor ci la bokk de yonent yàlla doom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu amee doomam ñaareel muy abdoulaye ba mu génnee àdduna abu lahab dafa dem ci garam place ak penc ma naan bég leen muhammad sallallahu alayhi wa sallam labtaar la rek laa wax de mooy koo xam ne du am doom doom ju mu am mu dee yàlla ne ko déedéet inna shaani'aka huwa al-abtar kala bañ ko koy kii dog askan de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ñu ngi ziyaare ay sëtam te kuy jullit rek ci njabootam nga bokk koo kay ku laptaan waaye tumuraan ko woon na noonu de abu jaalin bu yonentu daan xoo ñi ci lislaam ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam lislaam doomu aadama yi daf koo jaral lu ne xarisun aleykum maa anittum yonent ku xiiroon la ci jullit ñi laa wax de yërëm leen moo tax daan dem ci marché yeeg fu ne dexoo nit ñi pour ñu mucc ci sawara duggaal jana te loolu mooy dugg ci lislaam abu jëriñ topp ca gannaaw ga di weddi jëli xeer di sànni ba tànk yi waaw di nàcc rek moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeggoon na ci tumuraanke foofu kon kooku natt bi moo ci jiitu umu jamil soxna abu jaalin la daf daan enu ay mattaki dig rek di ko teg ci yoon wi nga xam ne fa la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di jaar di julli ci xeggoon na ci tumuraanke foofu ku pank la woon mu jëmeen wax ju ñaaw ju ne rek wax na ko ci yonent bi de ba yàlla wàccee tabbat yadaa abii lahabin tabbat yadaa abii lahabin dégg nga ba ŋaññi abu lahab ŋaññaale mu jëmeel mu jëmeel dafa ñëw fekk yonentoo ngi toog abu bakar mu tubb loxo bi xeer ba mu fees dell mu ne aywa ñëw ne abu bakar an nga xam ne moo ñuy xas ci ay way abu ne ko xam nga ne sama waa ji mun way rek laa wax de alquran la ñu jógee ci yàlla mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko waaye su ko gisoon danaa jël xeer bi nekk sama loxo bi daal koo sànni ci kanam ga ba pare nag moom it way ay wayam ne musamma man asay naa wa diinahu abay naa wa amrahu xalay naa kuñ naan ñi ki lañ mooy ñun diineem ji bañ nañ ko Biramit bañ nañ ko de moom mu zammam lay ŋàññi te yonent bi Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf koo aar ba ku koy ŋàññi sax mënu ko mënu koo ŋàññi. <clears throat> ba mu demee Aboubacar ne yonentu ndax gisul la mu ne ko gisul ma rek laa wax de yàlla téye na bët ba mënul maa gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon natt boobu moo ci jiitu ñëpp gannaaw ga it saxaabaam yi Musab ku xew la woon yaayam amoon doole keroog ba mu gëmee yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay ji def koo xiifloo ba yaram bi di xub di wadd mel ni xubiti jaar dund na loolu rek laa wax de bilaal umayatu daan na ko jël di ko takk buum ca doq ga boole koo xale yi ñu di ko diri ci mbedd màkk yi te màkk dafa tàng lool yu tàng yi ñu di ko doon doon ko jël doon ko teg ci kawam naan ko weddi yonent bi sallallahu wa sallam nga dee rek mu naan ahadun ahad yàlla kenn la yàlla kenn la ci loolu la nekk ba Aboubacar jënd ko daal di ko dugal ci lislaam daal di ko goreel maanaam Aboubacar def ko jënd goreel ko rek mu mën a dund lislaam nu ko bëggee kon saaba yi ñoom jaar nañ ci natt yooyu yàlla na la yow jullit bi bul yaakaar ne da ngay gëm rek jeex na dañ la nattu de yonentu ne jullit daal dafa mel ni gàncax googu nga xam ne ngelaw li dañ koy dikkee gauche ak fu nekk rek ngelaw laa ngi koy ëpp muy yëngatu waaw ngir bëri nattu rek laa wax de <coughs> yàlla na dana ma nattu leen ci seen teg leen ay jaamu yàlla yu diis ngir ba xam la ngeen woote ne yàlla ngeen gëm dëgg la wala déet dana ma nattu leen ci ay jafe-jafe comme nu mu ko tegee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ay saxaabaam naka noonu xeer wu njëkk wa yi nga xam ne ñooñu gënoon a gëm yàlla ñoom ñëpp yàlla teg na leen ay natt yu bëri jamono yonent yàlla muhammad sallallahu mbas mbas nag dañ koy dégg rek waaye nag gisaguñ ko rek laa wax de picc lay doon bu ànd ak néew yi la ko wër daal di ñuul kukk wala mu werta wala mu xonq xonq gu xaw ñuul bu ko defee xol bay yëngatu borom di wàcc loolu di mbas li fa am nii woo baaw la rek laa wax yàlla yàlla teg ko fi waaye mbas moom gisaguñ ko jamono yonent yi amoon na mbas mu ñu tuddee ci raway ci dëkk yi la daan wër di rey ñi rek jamono Omar ibnul Xataab amoon na mbas mu ñu tuddee amuwaas mbasam amuwaas Saam la nekkoon dégg nga ci la Abu Ubayda ibnul Jarraah saxaaba bi yonentu génne àddina ci la Muaaz génne àdduna ak ñaari soxnaa ak doomam bu jigéen rek laa wax de amoon na mbas mu ñu tuddee fatayaat ci jigéen ñi la commencé di leen rey rek gannaaw mu dem ci kilifa yu mag ya ba ñu mujj tuddee ko taawunu na shaaf ndax la ca dee ci ay nit ñu tedd rek laa wax de amoon na mbas mu ñu tuddee jaarif ci jamono ibnu Zubayr mbas moomu bis bu nekk rek dégg nga juróom-ñaar fukki junni ni danañ ci dee ci ñetti fan yu toppalante ñetti fan yoo xam bis bu nekk juróom ñaar rek wax de si jamono ju baax anas deele na ca 83 bakkan dégg nga maanaam juróom ñetti fukki doom ak ñett ñii ne juróom ñaar fukk ñett bu ibnu abi bakra deele na ci ñeen fukki doom mu ngay na bun ci kon ñu baax ñi yàlla yàgg na leen teg nattu rek wax de yow julit bi soo amee xéwal ci àdduna santal yàlla waaye loola ci dal ci jafe-jafe rek bu mu la bett ndax àdduna kër ak jafe-jafe la alaxira mooy kër ak jàmm rek laa wax de dund boo xam ne Aboubacar jaan matt la ko cam nee nañ tooke nañ ko tooke at tooke boo xam ne at rek ngay am daal di gën àdduna dund boo xam ne Omar ibnul Xataab dañ ko cee jëm paaka fekk mu ngi diyaale yàlla du julli ci la génne àdduna dund boo xam ne dañoo tër Usmaan ibn Affan dal di ko rendi dund boo xam ne dañoo jël jaasi dóor imaam Ali ba deret jay taq si eh, sikkiñ ba taq deret ñu ci la génn àdduna dund buñ tookee Xasan sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund buñ rey Xuseenu daal di dagg bopp ba dund buñ rey ibnu Zubayr si jamono Xajaaj ibnu Yuusuf daal di ko takk rek ca kaw ay fan ñu door koo suul dund boobu ma boo ci amee jàmm na la bett rek laa wax de <coughs> kon mbir mi foo mu moom la yàlla wax ne alif laam miim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibina yàlla nee da ngeen yaakaar da ngeen nañ yàlla rek ñu baleen noonu te du ngeen am benn nattu déedéet yàlla daa leen nattu ba xam ñi dëggu ci xoote gi ñu woote ne yàlla moo di jaam ñoom moo di borom bi ñoom ñoom ñoo di jaamam ñoom yàlla rek la ñuy jaamu woote guñ ko wootee yàlla daa leen nattu ba xam dëgg la wala dañuy nar rek laa wax de <coughs> jaamu yàlla mooy lan mooy moom rek mooy buur lu mu bëgg mooy xam lu mu bëgg du xam lam rek loolu ngay topp ci kaw suuf kooku di jaamu yàlla su fekkoon nag loolu neex rek la la yàlla di teg ah su boobaa ñëpp mën nañoo nekk jaamu yàlla duñ xam ñu ko nangul ak ñu ko nangulul ndax su boobaa duñ xam bakkan bi lañ topp wala yàlla lañ topp bu ko defee nag moo waral yàlla indi lu jafe ngir ràññee eh, tooñkat yi ak ñay nar ak dëggu ci lañ xoote boo ndee lu jafe nga topp ko lu métti métti rek comme que yàlla ko santaane yow loolu ngay def su boobaa dinañ xam ne jaamu sa bakkan yàlla ngay jaamu de su fekkee nag bu neexee rek nga ne aywa bisimilah. diine yàlla ji def diine ju baax la waaye bu méttee rek nga ne ah lii daal moom kenn xamul lan la daal di topp sa bakkan yow na la xóor ne jaamoo yàlla waaye bakkan bi ngay jaamu loolu waral yàlla a na rek pour xàmmee ñu dëggam ñu dëgguwul yàlla du ñu jaxasoo duñ xam ay jaamam ak ñu ay jaamam doomu aadama yi am ñoo xam ne seytaane la ñuy jaamu waaye am na ñoo xam ne bakkan la ñuy jaamu lu seen bakkan bëgg rek loolu lañ bëgg am ñoo xam nag tànn na yàlla mi bina samaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar te ku dund dana la te ñëpp danañ daje moom mooy dundal di dekkil waaw di wërsëgal am na ñoo xam ne yàlla moom lañ jaamu lañ topp na di ko jaamu yàlla ci sax ñooñu yàlla daa leen nattu ba xam nañ woote dëgg la am déedéet buur ne wala tasmaun na da ngeen dégg min ci gaa ñi nga xam ne utu joxam nañ leen alkitaaba téere yee te mooy yahood yeeg nasaraan yi min qablikum njëkk leen wa min allazina ak ci gaa ñi nga xam ne ashraku bokkaal lañ mineen arab yi ci arab yi dangeen dégg ci ñoom azan lor kasiiran lu bëri mina sabbi dañ leen ŋàññi wa taani ñu jam leen maanaam wax leen ay baatu ñaaw wa bi ak caaxaan bi nisaayikum seen jigéen ñi maanaam jël ay kàddu yu ñàkk teggin di ko wax ci seen i soxna ko dégg boo ne yéen ñi gëm bu leen yaakaar ne da gëm rek ne jeex na aywa jeex na ngeen am nox lay am jàmm ci àdduna du ngeen am benn jafe-jafe déedéet su boobaa ñëpp danañ xoote ne gëm nañ yàlla de te fekk seen bakkan rek lañ bëgg waaye yàlla dana leen te natt ngeen dégg ay kàdd yu ñaawa a ñaaw yu jugee ci yahud yi ak nafaraan yi loolu nattu la gu leen yàlla nattu ba xam dëggu ngeen ci li ngeen wax wala dëgguwu leen danañ leen xeeb danañ leen ŋàññi danañ leen wax lu ñaaw lu ne bokkaalekat yi ci arab yi ak mboolem bokkaalekat yi rek danañ leen ŋàññi wax leen lu ñaaw rek laa wax de da dégg lor yu bari dañ leen saaga dañ leen wax wax ju ñaaw dañ wax seeni soxna wax ju ñaaw ju bon loolu lépp yàlla dana leen ko teg de ba xam ndax da ngeen sax ci diine ji wala boog da ngeen di jéem a waaw neexal ñooñu ngir am jàmm ba kenn du leen waxati lu bon. lii wane na yow doomu aadama bi soo déggut kàddu rek xoolaatal sa bopp boo gëmee yàlla daal daañu la wax lu bon. yàlla moom xamee ne danañ wax ci ay waliyoom ci boppam la njëkkee tàggaray jaam ñu ne yadullaahi maxluula yàlla dafa nay xemuñ foofu ñu ne yàlla dafa ñàkk inna laa faqirun xemuñ foofu ñu ne yàlla am na doom mu dàllal bi ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent ñu ne ay dof lañ ñoo fenti lañuy wax yàlla yónniwul leen alal lañ bëgg jigéen lañ bëgg lu ñaaw lu ne rek tuumaal nañ leen ko rek laa wax de xemuñ foofu bépp wël yàlla wala nit ku baax rek waaw ci yoon daañu la wut luñ la tuumaal buñ la tuumaalul rek waxuñ la dara ci lu ñaaw waxuñ ko sa kër waxuñ ko ñaaju ci yow xamal ne nekk goo ci yoon wi rek wala des na yàlla nee na dana leen nattu da ngeen dégg ci yow rek nasaraan yi ak bokkaale kat yi lor wu mag a mag maanaam kaddu yu ñaaw de bokkaale nag bi ci gën a mag mooy jaamu xiram ba fa ki bind dem yetti dara ba pare di ko jaamu kookoy gi gën a mag wala nga jaamu jant wala loo xam ne daal ak mbindeef la kooku bokkaale la waaye am na geneen bokkaale gu nëbbu lool te mooy rek topp sa bakkan yàlla bëgg dara nga daal di ko fa ba xool la bakkan bi bëgg nga nekk ca dëgg-dëgg woote gi nga woote ne yàlla rek mooy buur moom lañ war a topp loolu dëgguwul ci yow bu dee dëggu ne ne jaamam yàlla nga su yàlla bëggee bakkan bi bëgg da ngay mooy bakkan ba daal di topp sa borom rek laa wax de su fekkee nag doo yow moom bu la bakkan digalee nga def bu la seytaane digalee nga def bu la àdduna digalee nga def dëgg-dëgg jaamootoo yàlla rek laa wax de yow yàlla yu bëri nga am bu dee yàlla sa yàlla topp ko rek Xasan doomu Ali ibn Abi Taalib dégg na kàddu yu ñaaw yi ñuy wax benn waaye tim na ko di ko xas ana waaye mën a lu nit mën a wax ci Xasan doomu Ali mi nga xam ne baayam mooy xam-xam sa yu dégg nga yaayam di Fatimatu gën ci jigéen ñi maamam di xadijatu nga xam ne moo dimbale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam maamam ju góor waa di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi gën ci mbindéef moom it muy sangu ñooñu xal janaana lu nit mën a wax ci ko waaye teew nit teel tiim na ko di ko ŋàññi di ko ŋàññi bare ko danaa la saaga saaga woo xam ne ba ba ngay dugg ci bàmmeel doo ko fàttale xasan daal di muuñ bañ demee ba jublu mbooloo ma mu ne ko yi nga xam wax ko mu jeex balaa mbooloo mi di la dégg bis bu ñu la déggee rek daañu la lor rek te man bëgguma ñu lor la waa ji ko maa ngi seet ne dëgg dëgg sa tam yonentu nga sallallahu alayhi man mi dina lor nga di ma jëñal lor bis ñi ki tey dootuma la waxati lu ñaaw de loolu wala doomu aadama noonu rek la war a de waaw waaye mënoo mucc ci làmmiñ de in uridu al-islaam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa tawakkaltu alayhi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi